fu ngeen ko jëlee su fekkee da ngeen a toog bind lu leen neex rek mooy ne yéen vous êtes incapable amu leen capacité pour liggéey pour pour seen peuple parce que bala ngaa liggéeyal sa peuple lépp loo dem bay bind daf lay wóor wala lépp loo xam ne danga koy wax waaye wax loo xam ne su bët setee peuple bi yëpp gis ne li nga wax du dëgg loolu dafay yàq liggéey dafay daane société dafay indi ay haine entre nit ak nit dafay indi ay yéene te su boobaa faywante mun naa am ci wax su jugee ci faywante ci wax mun na dem ci jëf te su àggee ci jëf rek su boobaa dina àgg foo xam ne surtout nag nit ñoo xam ne ay millions et millions de personnes ñoom ñoo leen di topp ñoo leen di déglu soo defee yu demee nii heure bu ne foo nekk rek yow daf lay oon ne ci sécurité mm-hmm. moo tax maa ngi leen di oo pour ngeen ñëw ngeen retour retourné ci dëgg te xam ne sérieux rek moom mooy jumbale nit ci liggéeyam yonent bi wax na ko wattaqullaaha wa aslihu fi talabi na ngeen ragal yàlla te ngeen rafetal seeni ut utin ni ngeen di utee ci kaw loolu maa ngi def appel pour tous les Sénégalais tous les pour le gouvernement d'abord les chefs religieux et les disciples de Cheikh Ibrahim et tous les musulmans de, vérifier ce genre d'informations qui peut créer les problèmes du monde. Parce qu'une personnalité comme Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Nias, qui a tout fait pour amener la paix dans en Afrique et dans le monde, vraiment on ne doit pas les les diaboliser comme ça. Mais Dieu est là, le prophète est là, nous sommes là. On est toujours derrière l'islam et son prophète. Et nous sommes fiers d'être le talibé de Cheikh à Tijan Ibrahim et euh, de demander le bon Dieu de lui donner de longues vies pour que vive l'islam et vive le Sénégal. Merci. kooku ngeen doon déglu mu nekk Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mahdi Ibrahim Niass moom it mu nekk ndimbal ci xalifa bi nekk rakkam nekk loxo ndajooram di ko dimbali bu baax ci activité yi nga xamante ni yëpp ñu ngi koy def ci diine ji lu mel ni gàmmu Nigeria gi tamit téere yi nga xamante ni dañ koy mool en France moom moo koy bind yi ñi mool en anglais tamit moo koy bind eh, moom it mu doon sànni ak réaction ci activité bi ci li nga xamante ni eh, tiital nañ àdduna bi yëpp muy Sénégal ak yërëm yërëm yërëm xor su xaw eh, ci liñ wax ci xalifa bi te amut waaye yaakaar naa ne wér na mbokk taalibe yëpp ne sëriñ bi mi ngi ci jàmm defu dara ñu ngi ci jàmm ba alhamdulilah di ñaanal njabootu gaay gi yëpp yàlla sàmm leen yàlla yàgg leen fi may leen fan bu gudd ak wér gi yaram ñuy jox dégg dañ ne mbokk taalibe yëpp di dala